5 minuten rek. 5 minuten willen we dat. De la mu hmm maa ngi jéggalu de mais xolal vidéo bu gàtt la gàtt léegi waajuma ko sax hmm, dama seetaan ndeysaan imam Babacar si le. Euh, bu Malika cité Sonatel ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm jàmbaar dëgg la euh, mu partager benn waaye xawma koroma ko ko déedéet maa ngi fàtte tur yi mooy fitiseur boobu rek tent bopp bi euh, ñu ne daal xawma Euh, Macky Sall la xaw ma da koo jëlal jet privé xaw ma pour yóbbu ko Qatar euh, pour mu ñaanal joor yi yéen sëriñu daara yi nag laay waxal oustaz Babacar Sylla yaa ko partagé de xam nga Macky Sall faalewu leen. Macky Sall bu leen faate faale woon ni xale bu soxna soosu eh, jëloon eh, première ci jàngum kaamil bi soxna ndate xawma bu doon moom lay sargal ndax soxna soosu jël concours ci kaamilu alxuraan ci njàngum alxuraan tafsiru alxuraan bu rafet la Macky Sall di woo ni ko yow mii di xale bu set wicci yow mii dem indil ñu ndamul alxuraan ji yow boo ñaanalee équipe nationale yàlla mën na koo nangu Macky Sall leen de respecté wu leen jël ay féticheurs di leen jox ay jet privé ay jet privé dégg naa waaje nee na xawma euh, Wally Seck lay xaar mu def vidéo euh, wax score bi ñaata la Sénégal bëgg gis ngeen yéen de yéen nitu diine yi yéen ñi fi nekkal yàlla <laughs> nekkal fi kenn faalewu leen kenn kenn kenn kenn faalewu gis ngeen bu jommee nag ñëw ci seen tànt yi ah di fa wax ay rajaatoom salaatul fatiha salaatu ala fatiha ak <laughs> man damaa joom <laughs> man jombi na mana video bi ma def daf ma bet daf ma bet pour ma def ko de mais lima ci nakari manam lan motax Macky Sall nitu diina yi ci rew mi Macky Sall respecté wu len man lol rek ma metti lutax nitu diina yi ci bir rew mi lan motax Macky Sall meunu len respecté yow yaangi ne yow da ngay wo wa wa, wa daara yi wo imam bi soxla ay nonga daara fi fitiseur bi ngay jox jat, jat privé pour mu dem Qatar pour lan la accuser diaboliser ya, ya, ab fitiseur boo xam ne man di naan kat katt jabari def lu bon fitis fitis ñepp ko xam ñepp xam na ni diiné l'islam dafa haramal fitis ñoo leen ñu waxante deug yeen imam yi lay waxal am leen fulla am leen fayda sam leen seen ngor ak seen dignité sam leen seen ngor ak seen dignité hein ah. Macky sàll bu leen faalewul maanaam na faale sax diine te bañ a fawee diine ji mais yéen même bu leen faalewul di leen fawee ka ka këlli këllee sax garaawul mais bu mu ci dugal lu jëm ci diine quoi bu ci dugal lu jëm ci diine am na imaam yoo xam ni nag bir na ma ci leeruk alquran maki sàll bu leen joxoon jet privé tànk seen tànk du tege pale mais am na imaam yoo xam ni Macky bu leen woowee bu leen woowul fun mën a dem ci àdduna bi jëli njaga njaay yëpp fay nit ñi leen samay dongaa gi dinañ ko def kon yéen imaam yi fi nekk nag am fulla am fayda te dara ñoru leen lu dul xeexal diine xar leen seen tànk tubéy ci lii ñuy wax waru leen fee mën a nekk bu dëkk bi yëngoo ñu ne jàng leen ay kaamil na jàkka yi ñaan na église bi ñaan bu Sénégal amee match daal ñu dem jëlee ay féticheur sa xaj di leen jox ay jet privé lu kenn xamul lii ak ñàkk fayda la ak ñàkk fayda la ak yaafus la live bi nag programme wu ma ko ñetti baat yii rek laa ñëwoon pour wax ko fi ni leen yéen ñii wuy ji xool leen Macky Sall ni mu def ak féticheur bi euh, euh, jëm Qatar bi xaw ma mën naa indil Sénégalais yi ndam ban bëgg koo jox jet privé yu kenn xamul ñii yéen a ñàkk cokk doomu xaraam yi.